rek nga invité woon tey. ndax. Euh, hmm. euh, li gën a doy waar yow da xëy fajal na ñun. Hmm. boo rombee buntu immeuble yi gis euh, compteur yi. Hmm. ku tàkk rek jox sa morom yëpp koy tàkk waa <laughs> du nañ jëlloo si moratoire ba xam bu ko defee ñuy dugal par quinze mille ah, waaw waaw ngoog de jaajëf Fall jërë ngeen jëfati bokk yi ci ànd beeg yewandoor ak ñun RFM rajo Futurs Médias ñu ngi fii ci Ndakaaru Médina rue quinze angle Corniche immeuble El Hadj Mandour xibaar yi ak ministère bi ñu dénk njàng mi dogal na euh, li ko tàmbalee démb ne bis ne tey euh, dug muraay euh, croix wala perle sacrée bu nuy tere ci l'école yi kon loole la digal kilifa yi daara yu Sénégal moo xam public la di privé ci it loole ne ay doxalin nag faw léegi inspection d'académie di ko may gëtt benn ndongo bu nu ne dañ ko dàqee démb ci l'école Sainte Bernadette ngir wàllu kon nag muraay soxna si jiite l'école ba na demee wu ni moom sœur Marie-Thérèse euh, Philippe Diouf euh, tere wuñu ko njàng mi waaye defal nañ ko ceetlu gi ne daal dafa jalgati règlement intérieur ba législative 17 novembre 2024 ñu bëri song liste Pastef waaye Ayib Daffé kenn ci kilifay parti bi ne dañuy daal di perte seen temps rek ñoom ñëpp seen kalaame yooyu dañu koy niilal ca bis bu nu gañee li ñuy bañ mu am dina am maanaam haute cour de justice ngir ñu jalgati yorinu euh, askan bi coalition euh, bi nga xamante ni muy ànd defar suñu réew moom candidature bu Barthélémy Dias la song te de liste coalition sàmm sa kàddu ci technique bi may sa mbay ñu tàmbalee njàng meeg dogal bu jibee démb ci ministre bi ñu ko dénk fànn woowee muy ab arrêté jëm ci daal léegi euh, dub muuraay wala croix wala beneen mandargay dina bu nu war a mun a tere ci lekkool yi ci Sénégal kon ci wàllu règlement intérieur euh, sàkku na ci inspection d'académie ñuy may gët euh, lu ni mel Kumba Sanjaan Fay ñu ko doon xaar laata 27 novembre bu wees ni ko njiitu jëwriñ ji digle woon ab courrier la inspecteur d'académie yi jot ñu ci arrêté 02 46 30 ni jëm ci wàllub njàng meeg njàngale mi ak formation war a tëddee fukk ak benn article la arrêté bi am article boo ko xoolee ñu ngi lay xamal ne dina am léegi caytu bépp règlement intérieur dañu koy jox inspection d'académie yi article 3 di xam le ne inspection d'académie yi buñ leen saisiree ak ab demande am na ñu ñaari weex ngir mën a wax ndax règlement intérieur bi sàlloo nag niñ ko tëralee règlement intérieur bi bu ko inspection d'académie yi nag wut duñu ko mën a appliquer ci bi ëpp règlement intérieur yi mooy ñu garantir lu ñu duppee cohésion nationale garantie liberté ku ne ak liberté ñëpp waaye it respect gëm-gëm jëm ci wàllu diine ñëpp xajatle bañ a am ci article 5 ñu mun ci lire ne règlement intérieur bi dafa war a assurer lu ñu duppee mixité maanaam góor ak jigéen mën di nekk mën a jëfandikoondoo ëttub école yi table banc yi waaye it ñu nangu beneen anamup nuyoo bu dul joxe loxo ba tey ci article bi ñu wax ci ne nañuy nangul ko mu sol moo xam muuraay moo xam muuraay wala croix wax ne ak ak yelleef ak li war bépp élève bépp parent ak ñi nekk ci école bi dañu ko war a définir mu leer article 10 bi nag di xam ne ni bépp école bu sàlloowul ak lii ñu wax ay daan mën nañ ko teg sa kaw jërëjëf Kumba euh, Sandiane xibaaru démb bi wasaaroo nag rawatina ci internet gi cib élève bu nu dàqee ci école Sainte Bernadette bu euh, Ndakaaru ndaxu muuraay yi directrice bu école ba ne déet demeewu ni ba nanu ko mu jàng waaye defal nañ ko nag ceetlu gi ci jalgati gi ci wàllu kon règlement intérieur ñeel lépp lu jëm ci wàllu am col ca boobee daara dana ko déglu sax moom soxna euh, sœur Thérèse Marie Philippe Diouf ñu teewlu ko Kumba Sandiane Faye. À notre grande surprise nous avons koo xamante ne euh, dafa ñëw te respecté wul euh, les règlement bi wax ni ñu ko waxee sax demewul noonu élève bi dàq ñu ko benn yoon ci salle de bi mu nekkoon ñu xamal leen ne élève bi def na cours ba cours bi jeex dañu ko interpeller rek woolu ko ba mu ñëw wax ko ne euh, lii école bi daf koy tere maanaam moom respecté wul règlement intérieur bi bi ñu ko waxee mu nangu ko loolu mosuñu ko gis ci école bi moom fi la jàngee sixième ba ren jile quatrième lay def article euh, dafa wax ne euh, élève bi euh, nii la war a soloo maanaam bu dee école primaire da ngay sol chemise bi ci short bu dee college it luy nie bi wax nañu ko da ngay sol chemise pantalon colline bi daal règlement intérieur bi li mu ci wax dafa leer léegi nag lii dañ ko jàppee ni ab provocation te nag ñu ngi ko doon xaar. Nous nous sentons aujourd'hui face à une provocation comme on pourrait s'y attendre d'ailleurs. Mais à quelle fin alors? Seuls ceux qui sont dans cette provocation à cette mu nekkoon euh, njiital euh, l'école Sainte Bernadette euh, ci leeral RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-benn minute. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ñu dëgmal élection palak député ngir assemblée nationale beneen ci Sénégal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre lay doon euh, ci wàll woowu nag euh, ci euh, politique am na ca ñu bari ñu defi kalaame ngir daal di niilal liste Pastef waaye mandataire bu boobu parti Ayib Daffé ne dañuy sonal seen bopp rek seen kalaame yooyu yëpp la ñuy niilal ci it bu nu gañee dinañ fi taxawal lu ci mel ni haute cour de justice Idi Sow. Ayib Daffé mi ngi daan ñi fi nekkoon ci nguuru Macky Sall moom nee na bu ñu amee majorité ci assemblée nationale dinañ fi installé ab haute cour xam nga bu fekkente ne gars yi dañuy naan dañuy def ab recours ngir Ousmane Sonko bañ a bokk ci élection yi. dañuy dalal seen xel rek. waaye xam nañ ne lu nu mel du mujj fenn ay caaxaan la ñun ñoo ngi def suñu kéem kattan ba rek gagné élection yi. am majorité ci assemblée nationale teg fii li nga xamante ni moom mooy haute cour de justice. de mettre en place la haute cour de justice. waa Pastef dañoo jàpp ne kuje bëgguñoo dem ci élection yi ñu dëgmal. Ayib Daffé mi ngi xamle ne loolu moo tax yi ca conseil constitutionnel. opposition ba nga xam ne euh, ñu si gën fës mooy liste ba nga xam ne coalition contre nature ma nga xam ne euh, Macky Sall ak Karim Wade ñoo ko teg coalition boobu dafa mel ni dañoo jaaxle dañoo tiit parce que bëgguñoo dem élection ak seen i morom ñu ne dañuy déposer ay recours yoo xam ne ñëpp gis nañ ne ay recours caaxaan la ay recours tàppale parce que soo nee Ousmane Sonko du électeur te Ousmane Sonko voté le 24 ñii dañuy caaxaan dañuy ñu sukkandikoo ci Ayib Daffé ministre bu l'intérieur bëggoon ci huit milliards ci élection yi ñu dégmal waaye kujje gi ñoo lànk li ni mel. xamuñu loo xam ne mooy intérêt sénégalais yi. ministre de l' intérieur démb convoqué woon nañu ñun mandataire parti politique yeeg coalition yi pour ñu xool dëkk bi situation bu mu nu mu tollee naka nañuy yaxanale naka nañuy économiser ci wàllum bulletin yi. proposé ñu ay bulletins yoo xam ne du doon bulletin traditionnel yi parce que dañuy gis ne bulletins yooyu dañ ci yàq xaalis bu bëri. donc ñu proposé ay bulletins de petit format yoo xam ne photo tête de yi ñoo fay nekk mais opposition ba surtout coalition non Macky Sall Karim Wade dañoo bañ ba tëddi si suuf. ñoom waa PASTEF bëgg nañu am ab majorité ci assemblée nationale ci élection législative yi ñu dëgmal ngir ñu gën a mën a jëmmal bile projet. Idi Sow jërëjëf euh, ay recours di clamé contre Pastef waaye Pastef it wëlbatiku def recours euh, ci ay xibaar jëm ci ñu niilal candidature bu baax te li mu toy Dias coalition ànd liggéey sunu réew it euh, def lu ni mel déposé ak clamé ngir tête de liste bu coalition sàmm sa kàddu moom baax te li mu lu ci mën di am fi ñu dëgmal ay fan ñu dëgmal conseil constitutionnel moo ci addu kon ci wàllu ay tontu ñu des ak wàllu élection palak député yeeg mbooleem Euh, coordination union régionale parti socialiste yu Kaffrine yu yëglu euh, maire ba fut ndax li nu tabbul Abdoulaye Wilane ci liste euh, candidature yi jëm ci wàllu yooyee élection député démb ci jano taskatu xibaar yi la ñu wanee maire gi ak njaaxle gi daal di ci interpellé seen jiit soxna Aminata Mbengue Ndiaye dañu ci teewlu ki ci yoroon seen kàddu soxna max Mariama Ndiaye ak Ndeye Awa Bey nekk ay socialiste fii si département Kaffrine dañoo wër wër wër liste yëpp muy liste nationale muy gisuñ suñu leader gisuñ suñu mentor gisuñ ki nga xam ne moo jëmmal parti socialiste si région bi ak si département bi muy le président honorable Abdoulaye Wilane am méttitu xol am na tamit njaqare ndax suñu we wekkee Abdoulaye Wilane si liste yi départemental ak euh, national dafa mel ni kon ñu ngi bëgg attaquer le parti socialiste Kaffrine ñu koy naqarlu parce que bu ñu jëlee lu toll ni honorable Abdoulaye Wilane seppi ko ci liste yi ba pare jël ay nitam au lieu que ñu teg leen sax titulaire waaye di leen mel ni ku leen di gën a tuutal rek di leen kokkali def leen ay suppléante te Abdoulaye Wilane bu fekkee dañ ko génne si liste yi laajoon ko góor am na góor yu mën a dugal parce que am na ay dossier góor yu yor buñ ko laajee jigéen titulaire am na jigéen yu mën a dugal parce que am na ay dossier jigéen yu mu yor parce que nag Abdoulaye Wilane ku ne xam na jaar-jaaram si parti socialiste parti bi la ñuy waxal PS Kaffrine région ak département ñoo bëgg a taxaw banque seeni loxo xaar ay explication leer soog avancé si campagne bi mu nekkoon soxna Mariam Ndiaye parti socialiste Kaffrine élection législative yi seetlu gi mooy journaliste yu bëri tabb nañ leen ci liste yi ngir kon euh, doon député ëllëg euh, ayul ay citoyen lañu waaye la ci ay mooy boole méccam tasam xibaar akum pété politique moo waral kore diiglu yi leen fàttali ne kon nañu daal di teg fële ca ñag ba seen métier ne journaliste fi léegi ñuy noppi ci wàllu xëccooy politique yooyee 8h11. ak RFM. kumpa jeex British Petroleum moom mooy doon kenn ki jënd production gaz bu GTA tribunal di commerce bu Paris moo ni dogale ñu fàttali ne gaz boobee nag euh, production bi dina tàmbali euh, ci njeextalu at mi projet la bu Sénégal seq ak Mauritanie leeral yi Makumba Bey. tribunal de commerce bu Paris moo jox dëgg BP British Petroleum. ci kaw Cosmos BP marketing ab filiale la ci BP moom nag léegi lu génne ci gaz ci GTA rek moom dong moo koy mën a jënd Cosmos du mën a jaay keneen 2,5 millions de tonnes at mu yàlla sàkk te loolu day dem ba ñaar fukki at Cosmos li mu bëggoon mooy seet ku ko neex mu mën laa jaay waaye tribunal bi nee na loolu munta nekk daaw nag lañ layoo ji woon kalaamente foofa ci talaata ji la tribunal bi atte Reuters joxe xibaar bi Ibnu Sugufara di économiste de l'énergie ni gouvernement wu waroon naa yëg lii ba pare yëgal ko waa réew mi lu ci mënti am comme ñun dañ cee bokk dañoo war a xam li xew bu fekkee ne ñoom ñaar dañoo jote ci seen biir ñun dañ cee war a xam xam aussi nan la terminé xam nu mu demee bu ko defee ñu wax ko population yi donc état bi forcément xam ne xam ne war nañ ko xam a bloqué ban jour la affaire bi war a commencé génn puisque ngi doon wax ne moment bi waroon na génne te am na retard bu seen biir te ñun ñëpp ñu bokk ko ñun mu demee informer suñu population. BP ak Cosmos ñoo bokk projet GTA BP am ci 56 pour cent Cosmos 26 Sénégal ak Mauritanie seddooli ci des ku nekk 9 ci talaata ji ca Londres. Angleterre ci conférence bu fa Bloomberg doon amal ci énergie directeur général Cosmos nee na balaa at mee jeex production bi dina tàmbali foofee ca GTA jërëjëf Makumba ñu waxtaanee courant beeg ñoddi gi euh, ci dëkku euh, àll yi di électrification rurale ab marché euh, ci fànn woowee valeuru fanweer ak juróom-ñaari milliards bu nu baaxe woon ak kër ngir kon liggéey bi autorité bi ñu dénk nag yoonal gi ñeel commande bépp bu jógee ci nguur gi di commande publique dafa daal di ajandi boobu marché ngir leerlu entreprise bi nu joxoon marché bi nag ne mu ngi xaar boobépp dogal war a tukkee ci kër googe yore àtte bi kenn ku nekkoon ni jamono ak biir ARMP Cheikh Saad bu Samb ne kër gi nga xamante ni mooy ARCOP yore wàllu yoonal gi Euh, ci lépp luy commande publique la mu def ci yoon la ko teg ñu teew lu ko Cheikh bu Bou Somb ak Ibrahima Diamé. ARCOP euh, su fekkee da ngay contester dara nga kii ko dafay rendre ce qu'on appelle une décision provisoire su soo xoolee sax moom dafa ne dañuy rendre benn décision conservatoire parce que jotaguñu élément d'appréciation yu ñu laaj euh, ASER ASER moo leen war a jox information yi jos tant jotuñu ko du duñu mën a prononcé wu duñu mën a wax ku ku ko am dëgg ak ku ku amul dëgg xam nga euh, dans c'est comme au tribunal rek bala balaa ngay rendre cette décision balaa juge bi de rendre décision day déglu parti yëpp su dégloo ñu nekk go parti yëpp nag soo xam nag san lay dëgg bi féete mu jël décision en réalité euh, l'ARCOP fonctionne comme ça le comité de règlement des différends de l'ARCOP mhm. donc donc fi mu nekk dañuy xaar que ARCOP joxe une décision au fond pour que ñu mën a xam quelle la décision ak ku am euh, tort ku am dëgg ak ku amul dëgg ak li tax ARCOP jël décision ne kii moo am dëgg kii moo kii amul dëgg nu wéy ba léegi ci wàllu xabaaru tàggat yaram mi nag Sénégal ci wàllu championnat d'Afrique ci wàllum fey zone de bi di xewee ca réew Ghana Sénégal am na ca nag ay jongante yu mu defoon démb jële ca ay médaille bokk na ca ñett yoo xam ni or la ak ñeent yoo xam ni itam euh, ci wàllub euh, xaalis la ak benn boo xam ni përëm la jongante yi dina wéy euh, tey jii kii di Ada Fass moom mu ngi signé kayit ak waa Eric Fabre la mu bëgg nag mooy léegi dem defi MMA gannaaw ci bu na fii ci champ ci lamb ji ci Sénégal te CNG euh, teg ko daan yooyu muy at boo xam ne dafa toog du bëre moom xaatim na kayit nag euh, pour def ñeenti combat MMA daaj rek topp ci tànku euh, Serigne Dia Bombardier ak Umar Kane rëg-rëg moom rëg-rëg boobu sax nag def na ay jéego yu am solo si wàllub MMA bi ba tax sax na mu war am beneen combat bu am solo boo xam ni mu ngi ko war a jongante kenn ku wax ni daal ku xarañ la ci mbir yi ndax am na ci benn ceinture bu ñuy xëccoo moom moo ko yoree gudduñ toll ni di Anatoly kooku nag dafa war a jongante ak euh, rëg-rëg euh, juróom-ñetti fan euh, ci weer bi ñu nekk di weerub novembre loolu kon tey la hmm. te mooy juróom-ñett. déedéet ñu ngi octobre def naa. waaw novembre novembre. waaw novembre waaw mooy weer bële di ñëw ci bés mooy bu ñu war a def ba bëre. ci diggante Modou Lo ak hmm. ki nga xam ne moom moo di mooy Siteu. Hmm. léeg-léeg ñu des ko waxtaanee mu jëm si uh, ay koppar yu nu yëkkati ak ay jumtukaay ay mayook yu mel noonu ne dañ ko may équipe yi nekk ca uh, commune bu uh, Dagana kooku nag la ñu ko jur mooy fexendi kon ba gën leen a ñaax ci ñu liggéey ak gone yi gën a jaare ci ay say waxtaan ak ñoom ci ñu nekk ay acteur de développement mooy ñu setal seen gox di jàngal gone yi tey itam di fexendi mooy tandiku yenn yi am ci réew mi yu gudduñ toll ni mooy ay mbiru immigration clandestine ak agression ndax jàpp ëllëg mm. ay nit ñu war a nekk ay royukaay. macha allah bu njëkk noonu la daa demee. waaw noonu la daan demee ci euh, bëccëg gi euh, foo ci ngoon gi. foo ci ngoon gi mu ngoog def ay fuural ak yooyu. ak ay ah, amul violence amul saagante. yow nga dem fuural alaaji <laughs> joxe cent franc. <laughs> pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ak yéen ci chronique culture beeg Anna leen di nuyu mbokk yi artiste marocaine bi di Layla Ben mu ngi exposé juróomi fan ci octobre ak léegi ca galerie Vema Oriflamme de l'âme mooy turu exposition boobu boobule nga xam ne mu ngi ci wone ay toiles yu bëri gulet nag muy amal ab euh, exposition solo moom Layla benn Alima fii ci Sénégal. yaakaar naa ni Sénégal mi nga xamante ni moom laa tàmbali euh, dafay nekk pour man ab buntu buy tax ma mën a wéyal sama voyage ci Afrique yëpp li tax ma tàmbali sama première exposition solo fii ci Sénégal euh, bokk na ci li ko waral relation jëm ci wàllub taarix yi Sénégal ak Maroc am waaye it ki nga xamante ni jàppe naa ko nit sama mentor di sama royuwaay doon ab artiste bu siw nekk sénégalais mu di Zulu mbay man dama jàpp ne artiste dafa war a euh, yëkk jafe-jafe yi nga xamante ne société bi ñu ngi koy dund am nañu responsabilité bu mag tey ci ci monde bi li muy traversé ñëpp difficulté jëm ci wàllu politique écologique wala sax ci aada artiste dafa war a nekk ambassadeur am ay valeurs yoo xamante daf ko war a gëm doxe ko bu ko defee léeg-léeg sax mu mën a influencer ñi nga xamante ne ñoom ñuy diriger suñu réew yi. que ses œuvre bu ne nag ci biir exposition bi mën na doon ab introspection ndax peinture bi mën nañ ko jàpp comme ab euh, thérapie bu ñu sukkandikoo ci Idrissa Diallo di commissaire exposition bi. liggéey bi muy wane boo xoolee lu ci bare mu ngi wax gëstu ci dëgg wax dëgg maanaam ndax euh, soo xoolee tableau yi lu ci ëpp daf ñuy delloo ci ñu xoolaat dafay mel ni benn genre miroir boo xam ne daf ñuy delloo pour ñuy xoolaat suñu bopp. ñun suñu nekkin wala suñu dundin ci kaw suuf donc ki fekk dafay xaw a mel ne loo xam ne sax faj lay nekk loo mel ne ndax bu ma delloo ne faj lay nekk day dellu ci sax ma dellu ci Layla benn aliment ci moom parce que moom boo xoolee à la base moom pharmacienne la de formation. waaw liggéey bu am solo la parce que boo xoolee liggéey bi lu ci ëpp sax moom dafay wax ci nit ci doomu aadama ci ci ci gàttal ndax moom ay questionnement lay nekk di laaj ñun nit ñun ñooy ñi ñun ñooy ñan. fan la ñu toll fan la ñu nekk fan lañ bëgg dem est-ce que ñun dañu nekk ki ñu bëgg a nekk wala est-ce que dañu bëgg ki nga xam ne société bi noonu la ñu bëgg a gisee. exposition bi mën ngeen ko visiter ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre ca galerie Vema mbokk yi fii la ñu ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. société industrielle papeterie express du Sénégal SIPEX mi defar kaye espoir ak kaye teranga Touba Darou Salam Caro Prestige seen lait de bébé Doudoune NSIA assurance ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf arrêté ministériel bi sant économie réew meeg ni ñu war a doxale l'observateur xëy na ko yër yër leen xët mu njëkk journal bi mooy arrêté bi premier ministre Ousmane Sonko santoon ministre éducation nationale Moustapha Guirassy ngir mu defal ko ko laata datu 27 septembre boobee ñu ne woon danañu ko publier bés bi école di tijji maanaam altine ji weesu l'observateur dëkk ba nee na amul benn école bu am sañ ba maqaama muy tere élève buy muuru mbaa buy takk croix wala muy ay per yuy mandargal ngëm-ngëmam ngir muy dugg ci école loolee dañ koy tere école yi euh, coowal voile di muuraay li ci l'école l'observateur nee na ñu waat na démb ci réew mi ndax ci école Sainte Bernadette démb am na benn élève bu jigéen bu fa muur woon bëgg dugg ñu tëy ko ci bunt ba looleet la gis démb ci école Sainte Marie Grignon li ëpp yu bari ci biti réew mi li leen xoj jamono ji di élection législative yi journal yu bari ñu xëyandool xëy ko bokk na ci ñoom journal bés bi le jour mi gis ne diggante Barthélemy Dias ak Ousmane Sonko du yomb ci élection législative yi ne ñoom waa Pastef ginnaaw bi waa takk wàllu Sénégal attaqué candidature bu Ousmane Sonko bi ca kanamu conseil constitutionnel waa Pastef ñoom it attaqué nañu candidature bu Barthélemy Dias nee nañu moom Barthélemy Dias dafa am lante ak yoon Dias nee nañu mooy li waa yi génne Ousmane Sonko ci législative yi dañuy fooye seenum xel ci caaxaan ca la nekk El Hadji Malick mi ko wax yéenekaay bi nee nañu dolli na ci wax ne dinañu delloosi haute cour de justice ci réew mi ngir topp ci yoon ñi fi newoon te bàyyi fi ay léexóor ak toj toj le témoin nañu moom koy démb ñoom waa Pastef ba ñuy conférence de presse ministre transport di El Hadji Malick bàyyilul dara Macky Sall ko gouvernement bi bi fi jógee El Hadji Malick dem na démb bay sulli ay mbiru yéeme yu ñu ne moom la fekk ca Dakar Dem Dikk nee na fekk nañu ca Dakar Dem Dikk lu toll ci 2814 ak 327 lépp lépp di 3141 liggéeykat yoo xam ne weer wu nekk danañu ñàkk ci ñoom 1 de masse salariale di liñ leen di fay nañu mbóot yi mu sulli démb moom El Hadji Malick Ndiaye rekk ci liñ ne moom lañ fekk ca Dakar Dem Dikk wax na ci la xew ca Fera wax na ci la ne général bi waa ASER joxoon entreprise espagnole bii di AE Power EPC ngir mu war a yóbbu courant ci lu toll ci 1600 yu nekk ca Ndar Louga Kaffrine Tambacounda ak ci Kédougou marché ba yéenekaay bi nee nañu suspendre nañ ko waa ARCOP di autorité de régulation commande publique ñoo ne dafa bari yu ca nekk yuy xel ba tax mu ne nañ ko suspendre ba lépp leer loolee journal bi nañu ginnaaw bi waa Banque Santander mi nga xam ne mooy bailleur principal bu projet cabinet bu maître Boubacar Koita mi représenté waa AE Power Sénégal SA Sisiré Arcop sursoi nañu scandale gi njoon njoxt ak doon ko ruumadaat ci marché bi mu ngay gën di leer l'observateur bind na caafa ngay bëgg xam ci marché boobee nga xam ne toll na ci juróom-ñeent fukki milliards ak lu bi président Diomaye am ngir Casamance ci la journal Las xëy yéen kaay bi nañu PDC lañ ko tudde mu di plan Diomaye ngir Casamance bokk na ci fukki milliards sa ay village yu nekk ca Kayor ak ca Bawol point actu nee nañu askanoo fa yeewoo ñu àndandoo taxawal mouvement tudde ko Carrefour citoyen juróomi commune yu nekk ca département bu Bambey ak ca Tivaouane ñoo ca nekk seen bëgg-bëgg nee nañu mooy kilifa yi jiite mi gëstu leen seeni tawat journal bi nee nañu becc nañu ko keroog ba ñuy conférence de presse bokk na ci ñuy dimbale leen ci ay tali goudron ak cim ndox ñu dox dellu ci l'observateur mi xëy benn moo di sa Camara ak lu Macky Sall mënoon a def amuloon pour di ko fekk ci avion mu toog ak soxnaam mu leen di wax lenn ñaareel ba yéenekaay bi nee nañu mooy Yacine Fall ministre affaires étrangères bu Sénégal miy jàppale Aïssa Camara ak di ko far ci li mu def bay bind ab communiqué ak di intervenir ci autorité Maroc yi loolee mënoon a ñàkk ñetteel ba mooy kii di Marème Faye Sall ak lu mënoon a xew rafetul ci ku mësa doon première dame ci Sénégal muy jug di saagante akub citoyen société industrielle papeterie express du Sénégal SIPEX mi defar Kaye Espoir ak Kaye Teranga Touba Darou salaam Caro Prestige seen lait de du Doudoune NSIA assurance ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñi doon teewlu xibaaru 8 yi ak RFM ministère bi ñu dénk wàllu njàng mi dogal na démb lu jëm ci wàllu règlement ci biir l'école yi maanaam yoonal gu jëm ci léegi euh, bis ne tey du muraay du croix du la sacrée bu nu war a tere ci yooyu daara euh, ci moo xam privé la wala lekool bu wekku ci nguur gi di public euh, ci wàllu woowe ministre bi daal dina sàkku ci inspecteur d'académie yi ñu may gët loole ak yoonal ak doxalin nañ ko dàqee ca Sainte Bernadette ndaxu muuraay soxna si jiite daara ja ne déet demeewu ni ba nañ ko mu jàng dañ ko rek fàttali ne règlement bu daara joojee euh, dafay euh, lànk doxalin wu ni mel maanaam daal dafa jalgati yoonal ga ci wàllu ak col législative 17 novembre ñu ngi ci waajal gi ñu bari nag songi list bu Pastef ci wàllu yoon euh, maanaam ay recours ci kanamu conseil constitutionnel waaye ay Daffé mandataire bu parti bi moom ne dañuy sonal seen bopp benn ci recours du ca jàll ca it bu nu noppee ci élection yi bu nu amee ñoom majorité majorité bi ci assemblée dinañ taxawal haute cour de justice coalition ànd defar suñu réew moom candidature bu baax Barthélémy Dias la àndul moo waral mu daal di kalaame ci kanamu yoon tête de bu coalition sàmm sa jikko maanaam Barthélémy Diaz ci technique bi may Maysa Mbaye digital gi naka noonu ñu koy gërëm bu baax di ko sant El sant ci micro bi ci kanam tuuti pencoo geeg RFM ñu waxtaanee wér-gu-yaram dinañ ci ànd incha allah ak njiital Sud Sas ànd ak mbootaay gi di euh, gësëm ànd gësëm euh, mbalu ja jàmm ñu yendu ak jàmm. spécial rentrée des classes ah ubbite école bi ñëw na seen société SIPEX di société industrielle papeterie express bu Sénégal am équipe bu dynamique te